Cheikh mu Mountakha ñëpp dégg nañ ci kàddu mu leeral wax ne lim bëgg ci dëkk bi ak lim fi tere mu ko defee nag damaa yónni ci ki nga xam ne moom la def muy jëwriñam ci yoon yi muy Serigne Sidi Mbacke ibnu Cheikh bu Ahad mu xamal ma ne boo demee nee ni ma ko defee sama jëwriñ ci yoon yi def ko jëwriñ ci dëkk bi te lépp ci loxoom noonu laa ko jiite la waat ci mbir mi nee lépp tegaat naa ko ci loxoom ba ma ko waxee ma wax ko sëriñ bi ba alxames sëriñ bi woo ma woo sëriñ Modou Lo Ngabou woo sëriñ Abdou Lahad Ka ak ñi ko seqal wax ni mu ko xalaate ak mu ko santaane mu wax sëriñ Modou Lo ne yow ko liggéey bi ñoo yow ñoo ci bokk ndax liñ ci doon rek ci doon te xam na li ci daa ci jamono sëriñ Saliou ba dëgg kon nag ndigal la ni ma ko sëriñ bi joxe may yeesalaat naa ndigal la ci yow nga taxaw ko di ko saytu na nga ko daan nag sëriñ bi loolu mooy ndigal li nga xam ne santaane la ko kon nag sëriñ Mourou ñu ngi la ci ñaanal ñaanal laa sax lay wax yàlla gën laa dëgëral gën laa kàttanal ba nii nga xam ne tàmm di ko toog léegi mu mot ñaar kenn wala mat na ko. te dëkk bépp teg nañ seen bët ndax eh, adduna dafa baaxoo lépp loo gis muy dox wala mu jàkk wala mu tegu ci yoon li fi loolu laa nga feeñ rek lay njariñ la doo ko xam waaye bis bu fi tegu koon benn bis wala ñaari fan rek nit ñi dañuy xam liy njariñu station de vente mm-hmm. bi itam ni ko sëriñ ci la waxe Abdoul Ahad Ka ne ko comme dëkk bi ci sa loxo laa ko teg na nga woo mboolem chef de village yi ak mboolem délégué de yi ak ñi ko war a àndal ñëpp ñu maase saytu liggéey bi xam ne ndigalu Serigne Touba la ndigalu nag képp ku bëgg ko yàlla defal ndimbal te nga am tawfeex rek ci jëriñ jëriñu bi rek mooy topp ndigal te xam ne ci topp ndigal ci la jëriñ rek ndax Iblis ñàkk topp ndigal moo ko yóbbu di ko dal te la ko ko teg mooy jëfandikoom xel. moo tax ndigal saa su agsee la gën mooy fexe ba xam ne jëfi ndigal rek mooy la lay jëfi loolu nag ku ne danga koy tàmbalee ci suuf te xam ne wàccu kenn ndax Cheikh bu Faye daana wax ne liggéey Sëriñ Tuubaa war na ñëpp te wàcc kenn kon nag na xam ne ndigal li sëriñ bi santaane lu suñu borom santaane la muy yeesal ko ngir bëgg ñëpp di ko def xam na buñ ko defee itam seen bopp rek lañ koy defal di gërëm nag njabootu am Cheikh Ibrahima Fall ci njiital sëñ Cheikh Jëmb ak mboolem njaboot yëpp ak taalibe yi ndax buñ ko tuddee rek mm-hmm. mel nañ tudd nañ mboolem Cheikh Sëriñ Tuubaa yi waaye tudd nañu mboolem njaboot Sëriñ Tuubaa yi ndax ñoom xam nañ ne bu dee ndigal rek buñ ko waxee mm-hmm. ñoom ñoo ci jiitu yëpp mm-hmm. ndax ku ne ku yaakaar Sëriñ Tuubaa ku ne am nga leneen loo yaakaar wala loo yaakaar waaye ñoom seen dara génn sëñ ñoom seen yaakaar dafa tàmbalee ci si yom bi sëñ gouverneur de mu nga xam ne ñu ngi ci door ñëw moom itam maa ko woon ci turu sëriñ bi ginnaaw bi ñu jox joxe ndigal sëriñ si bi maa ko woon wax ko mu ànd ak préfet ak sous-préfet ak mboolem chef de service yi ay ci région ñu ko sëriñ bi teg ci ak ñu koy àndal lépp loo xam ne gis nañ ko ndax xam ngeen ne naka njëkk ko ko jaarale woon ci autorité yi ci ne ngir xam ne civil te sëriñ sa yi da ko daa fàttali bari daa wax ne siwil du lijjanti moroom siwilam hmm. loolu waral sëñ bi jiite leen ci ngir bëgg lépp loo xam ne war nañ ko caa taxaw ñu ànd ko ne taxaw ne ndigal ñu ci ñoom ñu ànd ko ñoom sëñ Mourou sax ñu leen ci sant waaye rek nañ yee salaatal jàpp gi ak engagement bi hmm. ndax yëg na leen yëg nañ ne rek di ko sëriñ bi waxee taalibe yëpp maase nañ ci jëfe ko loolu nag seen dimbal rek la hmm. ndax sëñ moom bëgg leen yiw àdduna ak àllaaxira rek moo tax mu digal ko